13 minutes de vérité au plaisir de vous retrouver sur euh, Sénégal TV ci seen programme bi nga xamante ne yaa mbégte di leen ci accompagner du lundi au jeudi euh, mais également euh, vendredi bi nga xamante ni d'habitude baaxoo ngeen dañu gis sax ci li nga xamante ni moom moo di yeneen concept di une pousse à la telle li nga xamante ni moom moo di 13 minutes bi tey ba ci jeudi bi ndax invité bi ñu am moom moo ko laaj tout à l'heure également ngeen mën ñu retrouver ci entre elles bi nga xamante ni chaque vendredi à 20 dañ leen ko mën a proposer ma ci ànd ak Mami tegu ci également Souleymane euh, ñu ànd faram-fàcce li nga xamante en tout cas moo di ponk yi gën a fës ci actualité bi lu ko jiitu nag tey euh, ñu fas yéene ko defee noonu ak suñu invité du jour muy ki nga xamante ni moom moo di Yoro Dia euh, politologue mais également ministre conseiller porte-parole de la présidence sous Macky Sall tey moom la ñu am mbégte di fi recevoir ngir waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom moo di état des lieux bi nga xamante ni démb le régime actuel amal nañ ko face à la nation la ca wax te ñoom ñoroon réew réew certainement moom dinañu ci gën a mën a indil ay leeral mais également euh, yeneen ponk mu ñeel tamit li nga xamante ni moom moo di législative yi ñu dëgmal alliance yi nga xamante ni euh, ñu ngi tàmbalewu di formé wu euh, ñu dëgmal ko lépp en tout cas tey dina bokk ci ponk yi na a waxtaane sur ce plateau monsieur le ministre un plaisir comme toujours di la nuyu te it di am mbégte lool di la recevoir sur di di la fay di kontaan di ñëw ci kër gi mm-hmm. bi mooy sama ñaareel bi yoon mm-hmm. ma fi ñëw. Ah parce que biñ ma falee ministre. Mhm. Euh, ci fi ma njëkk ñëw ci la bokk. ah bon oui parce que pour ñaari mbir. parce mhm. que j'avais trouvé que dafa nekk innovation majeure. Mhm. que borom kër gi xamoon na c'est quoi l'avenir c'est quoi l'anticipation c'est quoi la prospective. donc dama ñëwoon boobu bi may door nekk ministre dans la. dans les deux premières semaines pour mhm. encourager ko ci initiative bi parce que àdduna day dox mhm. communication day dox journalisme day dox mhm. xamoon nañ presse écrite xamoon nañ télévision dama ko waxoon vraiment j'étais venu le féliciter ci initiative bi mu jëm parce qu'il a anticipé sur l'avenir loolu moo nekkoon le truc objectif le deuxième subjectif tamit maak borom kër gi ñoo ñoo bokk Kajoor ah tey jii bu la wii doon tëj Dakar bu ñuy ñibbi <laughs> benn ci benn <laughs> village bi c'est pourquoi euh, kontaan naa trop euh, li ma fi ñëwaat tey jii pour euh, échanger yéen ci ci Sénégal ak lu dëkk bi doxee. voilà euh, tey nag suñu échange dañ koy dooree ak li nga xamante ni euh, xam nga ni ki démb alxemes moo tombeek li nga xamante ni moom moo di 22 ans yi ñuy fàttaliku euh, naufrage bu batalo Joola bi nga xamante ni le 26 septembre 2002 la woon. Mhm. ba tey li nga xamante ni en tout cas mun nañ ko fàttaliku mu nekk en tout cas naufrage bu nga xamante ni booy xool ci àdduna war nga képp sax bokk na ci yu. Mhm. li nga xamante ni en tout cas moom lañ ci ñàkk ci bakkan. Mhm. donc lu ni mel tey avec le temps euh, démb ñëpp fàttali ko ko yéen ñi nga xamante ne également yéen fi yoroon réew ñu yàggoon gis mu am benn façon bu particulière bi nga xamante ne noonu ngeen ko daan fàttali ko. Mm-hmm. Euh, démb régime bi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu def ko peut-être dans la sobriété. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça vous fait man lecture nga ci am plutôt. mais lecture bi ma ci njëkk am rek nu état di doxee dama yaakaaroon ni comme affaire bi c'était le 26 septembre anniversaire Joola ak lu mu jàmp jàmp. premier ministre Ousmane Sonko mënoon na xaar ba soit mu def vingt quatre heures avant wala mu def vingt quatre heures après. Hmm. parce que boo amee naufrage mel doon nga xam ni vraiment c' une euh, démb maam def naa ci benn kii benn tweet en disant que le Joola c' une larme sur la joue du temps. mooy dafa nekk loo xam ni ba ilaa yow mi diin kenn du ko fàtte dafa dafa marqué Sénégal dama yaakaar ne rek premier ministre sur le plan protocolaire ak li mu waroon wax ak lu mu am am pour fàttali ñoo xam ne génn nañ àdduna ay sénégalais lañ c'est le plus grand drame une tache noire dans l'histoire du Sénégal mënoon xaar ba affaire bi jàll mu dem. et yaakaaroon naa ni moom bon président dafa nekkoon New York mais yaakaaroon ni premier ministre comme c'est la première fois ñuy ñëw. yaakaaroon mhm. ni premier ministre mënoon na fa teewu si teewal fa Sénégal mais affaire ni mel mais bon def na li muy def mais mhm. mënuñ du regretter ko. premier ministre mënoon en tant que d'autant plus que moom mooy maire de li gënoon rafet mënoon na fa teew. ak li mu doon wax démb lu xam nga wax moom mën na xaar. Mhm. mais loo xam ne benn yoon ñëw ci at mi xaar. Mhm. donc li yaakaar daal li gënoon rafet. Mhm. mu mu soldaal dam dem fekkee mbir moom. Euh, d'autant plus que ni yéen euh, bi ngeen yoree réew dañ daan gis ni le président Macky Sall vraiment ku ku farataalool euh, boobule boobule date dañ daan gis daa woon ngeen amal ay gerbe de fleur mhm. ak yu ni mel ne serait-ce pour symboliser li nga xamante ni en tout cas moom moo ci bës bi nga xamante ni kenn dootu ko fàtte ci ci taarixu mhm. Sénégal mhm. ca Ziguinchor également su ma juumul dressé nañ fa ab ab monument bi nga xamante ni musée benn musée musée oui plutôt pour pour en tout cas mu nekk li nga xamante ni day tax ñu fàttali ko bu baax a mm-hmm. baax euh, les disparus quand même du naufrage de Joola mm-hmm. euh, mais ci géej gi la ñuy desandi ba tey monsieur le ministre wax également ci li nga xamante ni moom moo di immigration bi xam nga ne nag ci fan ñu nekk nii moom mm-hmm. euh, xale yi moom li ngi gën di utali li nga xamante ni moom moo di yoonu géej gi di jël gaal yi ñu ci gis ay bakkan yu bëri yi nga xamante ni en tout cas ñu ngi ciy rot fan yee passé également tamit dimanche gis nga gaal gi teer fii ci Yoff ñu mun cee décompté lu toll ci 38 cadavres lu ni Eh, tamit ban jàngat nga ci am. mais jàngat bu ak ñu def ba yegg si jàngat bu mu métti xam nga man affaire immigration clandestine bu ma koy wax et puis ça me touche personnellement parce que ñëpp xam nañ ko caaru euh, géej laa dëkk dama waxoon souvent dans les années quatre vingt l'économie si wax plein emploi caaru géej amoon na ko parce bi ñu nekk xale. Thiaroye dafa amoon ay industrie moo nekkoon Sotiba Simpafric Icotaf donc boo dëkkoon Thiaroye ba war a liggéey tu avais le choix mooy plein d'emploi bu la neexee nga dem liggéey dans l'industrie Sotiba Icotaf ak yu demee noonu bu la neexee nga dem géej ñun lébu yi nag dem géej moo ñu gënal parce que dañoo yaakaar industrie ouvrier vraiment du affaire u lébu euh, beneen bi mooy dañoo amoon une de maraîchage moo tax ñu doon wax chupame mooy yàpp fraude bi daan am moom moo rey industrie textile moo tax euh, Sotiba fay fay fayit parce que fraude état bi géré wul fraude bi ba finalement ñu doon jógee Gambie rey Sotiba donc amatul liggéey industrie beneen bi euh, li nekkoon géej gi li ñuy wax euh, les accords de l'Union européenne les accords de pêche jekk rek li lay buy di wax géej gi kaaya. gi gi kaaya beneen bi moo nekkoon les zones de maraîchage l' état n'a visionnaire nga gis fi nga xam ni dañ fa daan bay des trucs comme sax pour le maraîchage léegi boo fa demee mooy fi ñuy wax ay ay ginnaaw raay yooyu yëpp foofu yëpp ay tool la woon et boo fa demee léegi ay kër ay ñoo fa nekk donc boo nekkee jeune mënatoo dem géej parce que géej gi dafa kaaya amoo fooy liggéey liggéey industrie amatoo foo foo bayee nga nekk jeune war a tekki looy def gaal gi moo fi des et c' est dama wax.

xale yi ay victimes lañ xale yi ay victimes lañ bu doon tey industrie am na bu doon tey maraîchage am na bu doon tey emploi am na kenn du dugg ci gaal yi donc waxuñ booy ñu dugg ci gaal yi mais aussi président de la république am un peu de compassion comme li xaar mba jam xaar mbay ma jaaga daan wax xale yi ku leen juróon yë ku leen yërëm leen donc xale bu ndaw am vingt ans vingt quatre ans au contraire les enfants sont déterminés leçon qu'il faut en xale yi am nañ fit ils sont déterminés dama bind récemment que xale yi ils sont aussi jihad déterminés que les jihadistes la seule différence c'est que le jihadiste lui il cherche la mort mais xale bi dee ci géej gi lui il trouve la mort en fuyant une mort sociale donc xale yi ils sont triplement victimes victimes de leur famille qui les pousse à aller pour tekki teral leen mm. victime de la société ki nga xam ne dañoo teg xaalis ci kaw a kaw mais aussi victime de l'État Parce que dans tous les pays, les meilleurs, dans tous les pays, c'est l'État qui doit créer un cadre pour que les gens puissent euh, s'enrichir. Je vais vous donner un exemple. Je vais souvent que le Sénégal, si on a un Suisse, mais justement ndax cadre boobu yéen ñi nga xam yéen yoroon nguur bu ngeen ko réussir à euh, euh, bi nga xamante ni bu takk bi ñuy gis xale gi mais kenn kenn mënu ko réussir à 100 pour cent moo tax dëkk dafa war a fondé sur des consensus xam nga ñun bi ñu fi nekk xale yi xale yi dem ñi fi nekk léegi lu ñu doon gëmloo xale yi oui le projet bu ñëwee Macky Sall c'est Macky Sall qui les pousse à la mort rek demee noonu bu projet bi ñëwee xale yi dootuñ dem. donc pour moi la meilleure sanction contre le projet mooy que xale yi gë xale yi ni ñu demee massivement ça veut dire que donc ñoom xale yi gëmuñ gëmuñ li di wax mais loolu dëkk dafa am consensus consensus bi ñu war a am mooy. nu ñuy def. d'ailleurs la ministre Maimouna Dièye wax na ko c'est-à-dire nee na leen mënu leen ñu fal ba noppi bëgg ñoo bëgg ñoo bëgg ñoo bàyyi fii dem. waaw mais boo boo bëggee nit toog da nga da nga teg dara da nga teg dara ci loxoom da nga koy jox perspective da nga koy jox avenir. mais ndax yàkkamti tamit amu ci parce que. tamit du yàkkamti déedéet métti na mais tamit ñoom ñu ngi doog a toog 6 mois. mais déedéet 6 mois bari na yow xam nga 6 mois Ousmane Sonko deful DPG lo DPG loolu lay jariñ di jox ngeen ma réew mi man premier ministre xalaat naa fii laa jëme réew mi mais depuis 6 mois ba léegi lu ñu def à part détruire l'économie du Sénégal xam nga lan mooy détour éco lan mooy détour économie mooy le harcèlement fiscal donc l' économie était dans le coma tey jii boo dox ci mbedd mi l' confiance moo ko yore économie consommation la boo demee New York boo demee Dubaï boo demee Paris lépp li fa yóbbu nit ñi consommation la li indi consommation mooy confiance mais dëkk bi amatul confiance ñoom ils ont semé l' incertitude et le doute dëkk boo génnee ci mbedd mi tu vois la tristesse ambiante dara doxul donc xale yi leen faloon à 54 pour cent amoon nañ ci ñoom ñoom li ñu waroon def fonde ci yaakaar boobu pour fixer un nouveau cap comme ni ko yonent yàlla musaa defee bi ko yahudi toppee di daw li leen firo firoon daan noot ñu dem ba jéggi géej ju baxaru xalsum yahudi ni ko noonu ñun dañuy dellu Misr dañuy dellu Égypte parce que ñoo foofu sax faraw ci firaw na daanañ fa lekk daanañ fa naan Moussa ni leen déedéet yëkki montagne leen fële laa leen jëme xam nga buñ ne DPG warul am débat yaay président du Sénégal waxal nit ñi fan nga jëm nga joxe espoir di leen kat situation bi difficile na mais boobu ba léegi pendant six mois kenn xamul fu réew mi jëm économie bi c'était dans le coma Ousmane Sonko doggali na ko xam nga lu mu ko doggalee. lu mu ko doggalee li mu wax démb. waaw ah, loolu ci ñëw. li mu wax démb ni way Sénégal ay chiffres foo lay joxe c'est la première fois dans l'histoire ma gis premier ministre jàkkaarloog àdduna bi ni leen sama dëkk ay faussaires lañ. les conséquence les conséquences am na. la notation du Sénégal euh, les marchés financiers sanctionnent déjà le Sénégal parce que bu doon opposant moo ko wax garawul dañ naan wax opposant la mais ndax yombul tamit ci yéen premier Sénégal ndax tamit euh, monsieur le ministre yéen li ngeen nekk di def tey ji parce que yéen tamit ki seen ki seen ci seen nguur c'est vrai que xale yi euh, euh, mbëkk mi lu fi yàgg la gaal gi moom jeunes yàgg nañ ko jël ci seen nguur également ndaw yi daawoon nañu jël li nga xamante ni moom moo di gaal gi te gisuñu tamit maanaam yéen li ngeen fi yàgg diir bi ngeen fi def douze ans de régime ndax tey jii waroon nañ toog ci Sénégal fii di fi di fi décompté ay jeunes yu ko ba tey di jël gaal gi bu doon yéen réussir ngeen dëgg-dëgg seen pari. déedéet bu Sénégal ak lu Sénégal réussir réussir euh, voyage dina am tey jii boo xoolee États-Unis li ñuy wax li ñuy wax États-Unis mooy the land of opportunity la terre des opportunités boo demee boo demee États-Unis donc immigration la. Angleterre bi ñu sonnee ñu ci bëri dañoo dem immigré dem États-Unis la crise quand la famine en Irlande ñu ci bëri dañoo immigré. dem dem États-Unis dem États-Unis Amérique latine bi mu amee crise ñu ci bëri dañoo immigré dem dem dem États-Unis c'est pourquoi boo demee New York tu as l'impression que le monde se rencontre à New York ku ci nekk am na foo jógee donc pendant la guerre du Vietnam am na Vietnam yooyu yu bëri dañu doon jóge Vietnam di dem Chine donc immigration ci doxalinu àdduna la bokk maintenant la question c'est-à-dire que euh, mooy ni ko boy yi defee dugg ci gaal yi dugg ci loocoy mm. nu ñu xool ak union européenne nu ñu mën a def ba permettre euh, euh, une une une migration régulière que nit ñi mën a dem mën a ñëw te ñun ci loolu lañ doon dox mm. amoon nañu ay projet ay programme pour avec l'Espagne avec l'union européenne pour voir comment organiser pour mm. que boy yi mm-hmm. mën a dem liggéey de façon saisonnière mm-hmm. mën man mën mën mën mën mën mën a ñibbi si waat mais migration c'est-à-dire que aussi c'est un débat géopolitique qu'il faut poser boo xoolee dëkk yëpp yi dëkk ci àdduna bi boo xoolee tey ji Angleterre ñi fa nekk la royauté seen origine ay tubaab la woon ay français Guillaume de Normandie moom moo traversé dem nekk Angleterre aujourd'hui la situation économique est telle que aujourd'hui nos jeunes sont voilà mais c'est ça le grand paradoxe du Sénégal dans quelque temps si le Sénégal bu xarañee tuuti Sénégal waratul yónnee ay nit ñuy immigré nit ñi ñëw war immigré ñëw Sénégal donc la migration circulaire boo xoolee Dakar fii da gis ñu bëri parce que Euh, baril baril waaw ñi ngi ci loolu ñoom ñii leur incompétence la futaa kii ndax dañoo dem tey ji ba yooyee leen daw dañoo dem ba jàpp ni maanaam parole politicien jarul doo sa doom parole politicien c'est-à-dire mooy l'incompétence de ces gens là ces gens là auraient dû créer benn électrochoc vendre l'espoir mais depuis six mois ba ñëwee vule gis nga leen ñu est-ce ñu def benn benn initiative boo xam ni dina créer la richesse. dina mais ils ont vendu l'espoir raison pour laquelle. oui mais ils c'est différent ils ont vendu du vent mais depuis qu'ils sont là ça fait six mois est-ce que yow mi journaliste mën nga joxe benn exemple benn initiative bu ñu def pour créer pour créer la richesse au contraire ils ont tout fait pour tuer la richesse. nee nañu pour créer la richesse. dañoo soxla koom bi te koom boobu la ñu nekk tey jii di jéem a koom boobu ci ci à travers li nga xamante moom moo di reddition des comptes ci li nga xamante maanaam ku luubal alal réew bi boobu la alal peut-être pour mun ci def lu bëri gis mu nous nous nous sommes pour la reddition des comptes mais li li ñuy wax ci français concomitamment parallèlement à la reddition des comptes qu'est-ce qu'ils ont fait tu peux pas six mois ni da ngay def réduction des comptes l'économie ça doit fonctionner l'économie c'est de la consommation dama jox benn exemple benn président États-Unis bu tudd Franklin Delano Roosevelt moom lañ fal après la crise de 29 bi ñu ko falee mu ko woo économiste yëpp ñu ëpp xel États-Unis leen problème bi lan la gars di ko wax économie récession demande mu leen non da ngeen ma expliquer de façon simple man man mën expliquer américains yi wenn économiste mooy les américains doutent amatuñ confiance waa ji ne ko économie c'est la psychologie mu ne ko ah bon mu ne ko waaw mu ne ko lan mooy problème mu ne ko comme américains ils sont dans l'incertitude ils sont dans le doute il sont dans le doute donc consommé tuñ jëndatuñ dara tey ji dëkk bi dara doxatu fi kenn jëndatul dara li nga am da koy jënc parce que ñoom dañuy def traque fiscale ku am dara ñu sàcc nga donc mu ni ko mu ni donc comme dëkk bi waaj ne ko non dëkk bi dafa am doute am incertitude boo amee doute am incertitude kenn du consommer bu kenn consommé kenn jëndul kenn du produire bu kenn produire du am main d'œuvre bu main d'œuvre amul salaire du am donc waaj na ko c'est circulaire mu ne ko donc problème Amérique yëpp yëpp problème mu dund la mu ñu ne ko waaw mun naa régler problème bi mu def benn discours ni américain yi the only thing we have to fear is fear itself la seule chose dont devons avoir peur c'est la peur elle-même li ñu war a ragal rek mooy ragal ragal ba finalement moo paralysé ñu ba finalement du du duñ def dara donc xaalis bi ngeen jën ci seen kër seen waxande génne leen ko ngeen yóbbu ko ci banque yi dès demain bon ko yóbbu ci banque yi banque dañu liggéey l'économie va redémarrer bi mu paree mu ni son chef de cabinet la suba nit ñi nañ dem ci banque yi maintenant la question bi ñuy laaj mooy est-ce que dañuy delloo seen xaalis wala dañuy delloo le peu bi ñu fa amoon la lendemain chef de cabinet ñëw ni ko non gaa yi ci banque bi rang bi bëri na mun ni ko ah c'est pas la bonne question la bonne question mooy est-ce que dañuy indiwaat xaalis wala dañuy retirer mun ni ko non dañuy loolu mooy économie confiance gis nga cuune yi cuune yi ñu jiite nag loolu lañ xamul ils ont tué l' économie bu ñu la falee 54 pour cent des sénégalais fal la nga ñëw mais waxal jeune yi Sénégal am na pétrole Sénégal am na pétrole dans quelque dans quelque temps oui mais am nañ pétrole mais boy xam nañ ko mais nga ni Sénégal nga ni nga ni Sénégal yi discours bi ñu waroon wax ñoom cuune yi ni boy yi léegi am nañ pétrole le Sénégal et un pays membre de des pays producteurs de pétrole dans quelques années ñu mel ni Dubaï. ngeen leen Sénégal fii zone bi ñu nekk yëpp ñun rek ñu fa am deux choses rares stabilité politique xoolal dëkk bi dëkk ñëw rëpp a ngi tàkk ñun amul benn problème ñun rek ñoo fa am stabilité politique ñun rek ñoo fi am sécurité juridique et judiciaire donc tous les capitaux de la sous-région vont venir à Dakar dans quelque temps Dakar va être comme Dubaï donc pour ñu mel ni Dubaï wala ñu mel ni Suisse donc il faut yéen ngeen gëm seen bopp ngeen jàpp mais waxuñ dara ñoom li ñu fi nekkee règlement de compte personnel est-ce que la question qu'il faut se poser est-ce que Sénégal dina ñàkk cinq ans pour permettre à monsieur Ousmane Sonko de faire des règlements de compte personnels. nous sommes pour la. ndax yéen ñi tamit waxoon ngeen lu demee. nous sommes pour la reddition des comptes. mais pas pour des règlements de compte mais nous nous sommes plus fins. xoolal la liste de la reddition des comptes kan kan lañ njëkk jàpp Lat Diop parce que Lat Diop ak Sonko ñu nekkoon nan am na temps Lat Diop ni ko way bi ñu nekk ENA yaa nekkoon Daare kan moo ci topp Mame Mbaye Niang parce que Mame Mbaye moo ko condamné pour diffamation est-ce que ñun dina ñàkk cinq ans boo yi dee ci géej gi pour permettre à monsieur Ousmane Sonko mu def pendant un an pour un euh, dérèglement de compte personnel gis nga tey ji li ñu war a wax sénégalais ah, yi. parce que selon vous c'est un mais bien sûr mais bien sûr nous sommes pour la reddition des comptes. pourquoi foo teg loolu. nous sommes pour la reddition des comptes mais pas pour des règlements de compte mais xoolal booy bi njëkk a jàpp Bandiaky ak li ñu fi waxoon fu fu mujjee fu ay woy passeport diplomatique boo xam ne waroo ko woon yor voilà c'est-à-dire que reddition des comptes euh, Penda dafa war a nekk lu normal. kon dans ce cas là monsieur le ministre da nga bokk suñu jàpp ni reddition des comptes bi cest dire oui vous vous êtes euh, pour la reddition des comptes mais da jàpp ni warul nekk au préalable ab defante. déedéet mais defante la xam nga boo boo nekkee ci administration <laughs> la reddition des comptes. mais pourtant bi ngeen jëlee pouvoir. waaw bi ngeen fi tegee créé. waaw traqué ki nga xamante ni moom moo di Karim Wade ñu ba dañ ko jàppee woon defante da ngeen Ah, parce que yàlla ah, yàlla rek. yàlla mais laata yàlla rek yàlla rek yàlla rek moo parfait mais ñii bu dee argument bi ngay wax mais ñoom ñii ils ont été élus sur la rupture. oui li fi amoon dootu fi am changement lañ bëgg rupture li mooy. li non je veux dire par là li ngeen leen di blâmer yéen a ko fi njëkk yéen a ko fi njëkk. def waaw ñoom waaw mais bu dee ñoom dañoo yaakaar ne li ñu doon def baaxul. wax ko Sénégalais yi. ba Sénégalais yi wóolu leen ba fal leen ñoom buñ donc ñoom buñ def li ñu doon def. ah ça ko def ñoo xam nga dafa xam nga dafa <laughs> dramatique tey jii on a toutes les conditions pour être le premier pays d'Afrique de l'Ouest buy émerger xam nga lu lan mooy émergence mooy paix civile ak sécurité boo xoolee la zone la ñu rek ñoo ko fi am lenn lan mooy indi émergence sécurité juridique et judiciaire amoon nañ ko mais gouvernement cuune boo xam ni nga fàllu ni damay def woy une commission nationale de renégociation des contrat xam nga li ñuy Amady Aliou doon wax quand on est ignorant on devient audacieux cest à ñàkk xam baaxul les investisseurs sérieux yi war a ñëw Sénégal parce que Sénégal am na paix civile na sécurité ñoom bu ñëwee ils veulent pour vingt ans. kan mooy investir ci dëkk boo xam ni premier ministre ci boppam ci cabinet moom mooy jiite la commission nationale pour la renégociation des contrats dama wax récemment ñoom dañ ko créer pour enrichir leurs avocats parce que mënul nekk ignorance à ce point beneen affaire ignorance bi mooy li mu def démb. dara c'est-à-dire li mu def dem ñu ngi ñëw mais bu ñu taxawee ci ñi nga fàttali léegi waaw muy laaj job bi nga xamante ne a rappelé ni di kii démb la fanaan guddeem bu njëkk foofee ca rëbës ndax placé nañ ko sous mandat de dépôt li koy toppee nag mu bokk ci wàllu blanchiment ak détournement de deniers publics ak yu ni mel pour rappel nag ki nga xamante ni moom moo di euh, Mohamed Dieng bi nga xamante ni moom moo nekkoon jiitalub 1xBet euh, moom nag ba tey teewagul ci li nga xamante ni moo di réew mi d'ailleurs sax c'est ce qui surprend ñi lu waral moom mu pointé ko du doigt ba noppi euh, te moom ba tey tey euh, teguñ ko li nga xamante ni moom moo di loxo euh, tout à l'heure ci sa biir développement yow jàpp nga ni ab euh, fayantoo la parce que Lat Diop daan tenir yenn propos yi envers le premier ministre Ousmane Sonko. Ah, mais ndax war nañ ki toll foofu. du jàpp kay premier ministre boppam moo moo ko wane yaa ngi fa wax ministre de la justice ci boppam moo ma woo ni ma yor naa tel dossier benn kii parce que ma ne ko defal sa liggéey. bu ministre de la justice boo xam day woo premier ministre premier ministre di ko wax en public ba ban indépendance. mais ndax du yéen a ko bëgg tamit indi sur ce terrain pour mën koo politiquer tout simplement. déedéet déedéet wax wax moom moo ko waxal boppam li booy di wax wax feeñ moom ci boppam moo taxaw comme on dit en latin urbi et orbi. dans la ville et au monde ni premier ministre woo na ma ni ma wéy pour tel dossier nga euh, ma ma ma ni ko defal sa ma ni ko defal sa liggéey bi muy def aussi bésub set set set setal lu mu waxoon. on va balayer les mauvais magistrats pour mettre les bons magistrats moom moo ko wax donc c'est-à-dire ci nasaraan moom moo indi la suspicion légitime sur la reddition des comptes et je trouve que c'est malheureux parce que la reddition des comptes l'audit est un mode normal de gestion li normalul rek mooy que ñu war ko lier ak ay alternance administration am na ay inspection de contrôle chaque année la cour des comptes ñoom lu ñu xaar tous les cinq pour ay contrôle la cour des comptes chaque dañuy am liste entreprise yu ñu contrôler mm. dañuy am liste entreprise yu ñuy contrôler ak ay institution ñooñu chaque année dañ koy def donc Sénégal xaarul pendant cinq ans ba alternance ñu def reddition des comptes ce qui est normal mooy l'instrumentalisation et le caractère de propagande bi ñu ko def le caractère de propagande bi bi ñu ciy bëgg a def mais reddition des comptes il y a pas de pouvoir sans responsabilité donc ñun ñëpp nous sommes d'accord pour la reddition des comptes ñun ñëpp nous sommes d'accord pour la transparence nous sommes d'accord koo xam ni tu as fauté que tu dois payer mmh. mais ce qui n'est pas normal mooy l'instrumentalisation mmh. l'instrumentalisation que dans le pays de Senghor de Kéba Mbaye et de Ousmane Goundiam qu'on ose parler des magistrats du projet qu'on ose parler des magistrats qu'on va balayer pour mettre magistrat yi jëloon ay décision yëpp qui était favorable à Pastef uh-huh. ñoom ñëpp am nañ promotion ñoom ñëpp am nañ promotion ñoom ñëpp am nañ promotion donc sama damay wax souvent ñoom li ñu yaakaar li ñu yaakaar dañoo yaakaar les meilleurs magistrats les bons magistrats mooy les magistrats qui ont pris des décisions qui leur sont favorables uh-huh. bañ nekkee dans l'opposition maintenant les mauvais magistrats moo nekkoon les magistrats qui ont des pris des décisions qui ne leur sont pas favorables mais Macky avant muy dem en toute légalité réunir conseil de la magistrature nommé président cour suprême ñoom bi ñoo ñu dingi ko parce que le magistrat là dafa jël une décision qui leur qui, ne leur pas été favorable mm-hmm. tey jii président cour suprême bi ñu nommé il avait pris une décision qui leur qui leur il avait qui étaient Sénégal état de droit la état de droit rek dafa ànd ak indépendant de la justice maintenant les. pourquoi vous dites que après après après ku mel ni Lat Diop euh, euh, Mame Mbaye moo ci topp après moom la ñu am na keneen xoolee ñoo am problème ñoo ñoo problème ak Sonko. Lat Diop le conflit avec Sonko. c'est-à-dire boo ko jàppee noonu kon Sonko xanaa moom ñëpp la nar a jàpp parce que. ñi am problème personnellement mooy mais aujourd'hui c'est ça Sénégal malheureusement Sénégal foofu la toll. xam nga damay wax souvent Sonko se comporte comme François premier François premier moo nekkoon roi de France bi indi terme majesté li ñu naan sa majesté ci François premier la commencé François premier boo xoon télé mon bon plaisir ça devenait la loi en France mais aujourd'hui le bon plaisir de Sonko est devenu est devenu la loi Sénégal. mais à ce rythme là ndax lu ni mel du dugal ci réew mi ci ab guuta defante bi nekk bi bi am ne au sommet de l'État bu dee. non non duñ di man euh, ce n'est pas parce que l'opposition que damay noirci ça veut dire que ça va nous faire perdre du temps. parce dañ mais le mais le Sénégal mais le Sénégal État solide ci magistrat yi ñu promouvoir man am na ñu ma ci xam mais ça c'est des magistrats de qualité et c'est ça la chance du Sénégal magistrats yoo xam ne ñoom ñoo leen promouvoir mais ñoom ce sont des magistrats de qualité et de valeur maintenant du ñu dugal ci guuta ça faire perdre du temps euh, kii pend li ma wax souvent mhm. li tax Sénégal tardé on n'a jamais posé le débat essentiel xam nga la mooy le débat essentiel mhm. mooy l'économie xam nga dëkk boo xam ni da ngay fal président le vingt cinq mars mhm. installé ko le premier avril doo am benn ko ak Sénégal rek moo ko mën ci àdduna bi li may benn exemple may jox. Mhm. Macky bi mu bëggee renvoyer élection yi conseil constitutionnel dafa bañ. Mhm. nu mujjee li conseil constitutionnel wax mu mujjee am. Mhm. donc dëkk bu mel noonu amul problème mu institution. d'accord amul problème politique. boo xoolee yeneen dëkk ci Afrique ñun amuñ problème mu jihad amuñ problème mu ethnie amuñ problème mu dara nous sommes comme la Suisse nous sommes aussi calmes et aussi pacifiques que la Suisse. maintenant li ñu manqué rek. mooy la stratégie ñu ni Sénégal lan problème lan am le problème réel les problèmes politiques sont des problèmes artificiels le problème réel mooy le problème économique. Mhm. donc problème économique boobu ñii bi ñëwee ci la waroon taxaw. Mhm. mais ils nous ont ils nous perdu six mois et ils vont nous faire perdre cinq ans. Mhm. un pour des trucs de règlement de compte ak pour des trucs d'amateurisme. li ma li doon wax. Hmm, c'est la première fois dans l'histoire dans l'histoire des institutions. ma gis benn premier ministre convoquer la presse nationale et ni leen mon état est un état daal yow loolu sax ban jàngat nga ci am déjà bu ñu taxawee sur la forme daal ñëw sax ci le fond démb lu mu ci wax bu ñu taxawee sur la forme naam lu ñu mel ab exercice légal la bi nga xamante ni lu ñu war a def la. nous mm-hmm. sommes d'accord euh, mais lu weesu loolu. ndax da nga jàpp ni quelque part premier ministre li mu wax ni démb bu doon jiite woon na ko ci li nga xamante ni moo di DPG bi ngay rappelé ni ki sànq peut-être doon na may ñi nga xamante ni yoroon nañu réew ñu mën a justifié wu ci li nga xamante ni peut-être moom démb loolu la loolu la loolu la loolu la fësal ci kàddoom mais bu ko waxoon ci bu ko waxoon ci DPG ndem def état des lieux des trucs comme ça les gens euh, la presse nationale internationale les directions financières il est dans la presse national et internationale pour leur dire le Sénégal est un état faussaire que le Sénégal fait du faux tout est faux au Sénégal xam nga bu doon opposant bu mel ni man wala keneen moo ko wax dañ naa non affaire opposant la mais premier ministre boppam moo ko wax mais moo tax gisoo la réaction des marchés financiers internationaux la note du Sénégal a baissé maintenant ñaar explication moo am ou bien benn bi c'est de l'ignorance ou bien benn bi il l'a fait volontairement man dama yaakaar ni dama yaakaar ni il parce que dama mas a wax que Pastef amul projet mais Sonko am na projet projet Sonko mooy la négation du Sénégal depuis le début Sonko est dans la négation du Sénégal lan mooy la négation du Sénégal Sénégal moom moo nekk dëkku Afrique subsaharienne bu masul am coup d'état mosul am anticonstitutionnel Sonko par une insurrection a essayé de faire tomber l'état bu ko defoon Sénégal day mel ni Burkina Sénégal day mel ni Mali ñuy am ay président de transition boobu il a échoué maintenant c'est ce combat là négation du Sénégal moom lay moom lay continuer léegi en faisant deux en décrédibilisant les gestions du Sénégal à l'intérieur à commencer par le président de la République parce que boo xoolee affaire DPG bi damay wax président de la République dafa def détournement de pouvoir les pouvoirs constitutionnels qu'on lui a donnés il les a utilisés pour permettre à Sonko de se soustraire d'une obligation constitutionnelle aujourd'hui président de la République au-delà de tout mm-hmm. ay pouvoir mais c'est une autorité morale mm-hmm. aujourd'hui l'autorité morale du président est atteinte depuis que le président de la République a signé un décret mmh. convoquant l'Assemblée nationale et la mm-hmm. veille il a fait du naxe mbaay Assemblée nationale bi donc beneen bi may wax ni moom il est dans la négation du Sénégal mooy yee fitna yee fitna sur l'histoire du voile waxoon na ko yaat cela quelques mois nit ñi mu ñëwaat ci boo indee problème mais tu veux opposer les les religions. loolu nag gisaani boobu tey yéen ngi ci ngooy yéen it. dañ ciy ngooy kay. yéen ngi ci ngooy yéen bëgg koo politiquer Penda il faut ñu politiquer ko. xam yi ak yi bëgg jaxase li nga xamante ni ñoom ñoo di. xam nga ci bëgg leen bëgg leen contre le PM. non non parce que gis naa yëf yi. déedéet non déedéet déedéet gis nga fitna bi. avant ci sax gis naa Victorine Day ba ñu investir ci moom lay mujjaale. alors que ni sujet bu sensible la non fitna boobu ci moom lay mujjee xam nga lu tax fii ku tudd Léopold Sédar Senghor un catholique jiite na dëkk bi pendant vingt ans ñen ñoo ko doon jàppale les chefs religieux. Thierno Seydou Nourou Tall euh, Sëñ Fallou euh, ñëpp les musulmans ñoo ko doon jàppale pendant vingt ans Senghor du woon dictateur il allait aux élections il allait aux élections contre kii Ablaye lay Ablaye Wade appartient à une double majorité Senghor appartient à une et Senghor a toujours gagné donc moo tax fitna bi bëgg a Sonko yee fi mënu mënul am ci moom lay dëppaat ma jox la beneen exemple. oui allez-y. problème ba li am ci problème ba li ñu am fële chez nous en Casamance ku ko doon jiite l'abbé Diamacoune pendant vingt ans mais indi coow masul indi coow donc damay wax ni fitna boobu mu bëgg yee ci boppam lay mujjee parce que boo xoolee fii Sénégal y des chrétiens qui feraient face à des musulmans c'est dans les mêmes familles cest dire est-ce que lu yéen ko bëgg tuddee fitna parce que dëgg-dëgg mënuñu ko jàppee fitna parce que on se rappelle président Bassirou Diomaye Faye bi ñu koy installé kaddu yu mu doon prôné toujours ba tey muy ko di ko prôné mooy la paix et la stabilité dans ce pays waaw def tout euh, dafa am prôné ak prendre des actes premier ministre ban intérêt la am di ñëwaat ci affaire boobu tout le temps beneen affaire yi mooy li ñuy wax que c' est une stratégie salafiste de la taqiya taqiya mooy la dissimulation. mais eh c' pour la réglementation des établissements scolaires. il a dit Penda Penda premier oui. ministre du Sénégal. peut-être c' est <laughs> situation bi économie bi toll. vraiment war na am yu mu war a mën a gérer lu dul ay machine à café wala ay règlement intérieur des écoles di moom moo wax règlement intérieur moo tax demul assemblée nationale moom luy toppatoo règlement intérieur école. premier ministre du Sénégal ak dayo bi ñu ko jox. mais parce que dañoo ñëw pour jub jubal jubbanti. waaw mais dañoo ñëw pour jub jubal jubbanti. mais premier li xam nga li ñuy wax premier ministre booy jub jubal jubbanti. premier dafa war nekk un homme d' état pas un homme de détail ay machine à café ay cuisine ay ay micro ondes quand même c' du détail l' émergence li may wax souvent l' émergence est la grandeur l' émergence c' est aimer c'est de dire comment on fait pour que chaque fonctionnaire am machine à café yi comment on fait pour que tous les pays du monde veulent avoir des touristes sénégalais parce que les sénégalais ont pouvoir d'achat li ñuy wax ni ay caaxaan la souverainisme c'est anachronique c'est de l'ignorance tey jii damay wax souvent le problème le souverainisme est un problème politique dont la solution est dans l'émergence économique mais ñun Chine ñoo ñu gënoon ndóol kenn bëgguloon mais tey jii Chine fu ñu fëgg ñu bi leen. parce que ils ont un pouvoir d' achat. ñii seen rôle mooy créer un pouvoir d' dama leen di wax. Mhm. dañoo war a am xam-xam. dëkk xam-xam moo ko yor boo xoolee Sénégal sur la carte du monde dëkk bi ñu gën a nural situation mooy Suisse am nañ jàmm. am nañ salaam am nañ ñu jàng mhm. am nañ ay intellectuels am nañ ce qu'on doit faire là par rapport à la sous-région qui nous entoure là comment attirer les investissements pour que Dakar wala Sénégal nekk une autre Suisse wala beneen nekk beneen Dubaï mais ñii boo leen toppee xam nga ñii xam nga fu ñu jëmee. Mm-hmm. Liban la ñu jëmee. xam nga xam nga li problème mu Liban. mooy affaire identité. Mm-hmm. affaire identité l'histoire du l'histoire du foulard. Mm-hmm. ak euh, d'autres histoires là. ça veut dire que ça va nous emmener Liban alors que ñun dañoo bëgg a mel ni Suisse wala Dubaï. mais mais monsieur le ministre bu ñu taxee ba tey euh, sur la forme. peut-on réellement parler de finance. wax ci koomu réew mi. Euh, sans la présence tey jii du ministre des finances Cheikh Diba démb mu jaaxal ñëpp. waaw la question se pose de xam nga nag bon enfin man bëgguma def spéculation mais le peu que je connais de l'administration premier ministre boo wootee ndaje bu amee nii solo. bu wootee ndaje mu amee solo ñu xam ko depuis deux semaines que ñu gis benn communiqué que le premier ministre des finances dafa nekk partie d'une mission à mon avis c'est un truc diplomatique c'est un truc diplomatique c'est le chef il a annoncé que depuis deux semaines que dina depuis deux semaines wala depuis dix jours que dina ko dina ko def mm. que je peux pas comprendre que benn ministre mm-hmm. ñu ni ñu ñëwul parce que dafa nekk dans une mission à pour moi c'est une réponse diplomatique. parce que un chef débat qui était sous Ba directeur de la programmation budgétaire xam nga kooku euh, teewaayam ci lu ni mel rawatina démb kàddu yu fa la PM yëkkati dafa nekk lu am solo. parce que quelque part sax am na ñu wax ni lu ni mel li ko ni ko PM waxee démb est du tax sax du ne nécessité ay ci li nga xamante dëgg-dëgg moom moo di peut-être nekkoon jël mi dénk ko wàllu finance. ah man de Cheikh bi ma xam Cheikh Diba bi ma xam. c'est un gars extrêmement compétent. Parce que Ousmane Sonko dafa <laughs> pointé du doigt ki nga xamante ni oui il a parlé de Moustapha Ba de Amadou Ba ak Macky Sall nit ñu ni sax ah, war nañ leen war a mën a déglu. waa xam nga li may euh, xam nga li may wax soit damay wax ou bien Sonko dafa nekk ignorant wala il est dans une guerre contre le Sénégal. man nag moo hypothèse c'est que depuis le début depuis 2021 Sonko est dans une guerre contre le Sénégal te après boo may ma xuj naa la dem naa la jox de preuves concrètes pour montrer que notre premier ministre est en guerre contre le Sénégal il veut détruire ce qu'on appelle l'exception sénégalaise boo xoolee li ma doon wax Sénégal ndamu Sénégal ci àdduna bi rek c'est de dire que ñun rek ñoo fi nekk le seul pays à n'avoir jamais connu de rupture anticonstitutionnelle mosu fi am fi ça veut dire que mu am révolution wala émeute nguur gi daanu ñu def ay gouvernement Sénégal rek la amul donc ca c' est fondement l' exception sénégalaise ah. donc insurrection bi Sonko tenté woon de 2021 à 2023 avant que ñu koy jàpp tëj ko ci kaso bi wan ko yoon tegaat ko ci yoon ba mu ñëwaat ci opposition légale donc tey bu Sénégal daanu woon bu Sénégal daanu ci émeute bu yàgg dañuy mel ni Mali ak Burkina bu boobaa nag ñu def conférence nationale les rentiers de la tension de la société civile nekk président de transition ñu dem bokk ay Sénégal ñàkk li nga xam moom la gënoon am ci àdduna bi tey jii boo gisee président américain yi fu ñuy ñëw ci Afrique dañuy dem dans deux pays Sénégal ci lay nous sommes la plus vieille démocratie du continent donc ça c'est notre bien le plus précieux et donc loolu Sonko dans sa guerre contre le Sénégal a voulu le détruire alhamdulilah il n'a pas réussi beneen bi mu bëgg aussi détruire le Sénégal mooy le détruire de l'intérieur détruire de l'intérieur mooy un soit mu yee fitna wala mu désacraliser la première action du pays mooy le président de la République aujourd'hui ñëpp xam nañu président de la République il règne mais roi d'Angleterre beneen affaire mooy tuer l'économie tuer l'économie te commencé na ko bañ fi nekkee ba léegi danga nga gis dara dox fi ciment tabax kenn tabaxatul ñiy jaay ñi ñi ñiy jaay jaayatuñ y a une traque fiscale permanente démb ci ci démb président jàkkaarloog àdduna bi ni leen état bi may jiite état Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade c'est des faussaires et c'est pourquoi les marchés financiers on on réagit négativement par rapport au Sénégal tey ji Sénégal bu demee sur le marché international pour la ba xaalis mais affaire day gën a cher donc toi tu crées pas la richesse ba pare tu fais fuir les investisseurs. su la comprendre bu baax. mais il le fait volontairement dañoo nekk di yàq réew mi. il est dans une guerre contre le Sénégal. ah mais loolu mën a nekkee. lu ma dox mënul nekk. mais monsieur ministre mais il faut que Sénégal yi ubbi seen bët. mais pour ñu defar réew mi. waaw mais. lu ñu yàggoon xeex pendant dix ans ñu nekk ci opposition bi yàgg bëgg ñu jox leen. ñu wóol leen jox leen ngeen dañ koy yàq. xam nga projet dans nous votre posture. Des, nous sommes cest dire d'accord, vous nous êtes sommes dans Vous êtes dans votre posture. Non, non, non. D'opposant. Mais quand Penda. C'est la première fois. De là fois. à dire que ni peut ñoom dañoo bëgg yàq réew mi alors que a jóg. ba àdduna su nekk ba léegi ñi ngi door a gis premier ministre jàkkaarloog àdduna bi ni leen état bi ma yor ay faussaires lañ noo ko mën a comprendre. est-ce que amul ay données peut-être ñun. mais ñan ñoo def ñan ñoo defar données yi mooy ses collaborateurs moom inspecteur moom inspecteur des impôts la woon. et puis Sénégal moom moo nekkoon l'un des rares pays boo xam ni ces chiffres étaient certifiés par le FMI. Sénégal dafa moom loo xam ne benn dëkk Afrique amu ko. dafa am chiffre yu nga xam ne da ngeen ko falsifié yéen ci seen nguur. mais ñenn ñoo ko falsifié. c'est la bonne question. ñenn ñoo ko falsifié moom il moom c'est l'inspecteur de l'administration centrale. PND FMI amuñ fi bureau Dakar FMI amuñ bureau Dakar. banque mondiale amuñ bureau Dakar yaakaar nga ne ñun ñoo gën a muus FMI mais bu ñu falsifié woon chiffres yi nañ am TER am BRT et puis l'année dernière le le la banque mondiale a classé le Sénégal parmi les économies les plus dynamiques mais loolu comment tu c'est des faussaires mais yow doxal Dakar yaa ngi gis yaa ngi Plateau yaa ngi gis immeuble génn loolu comment ça peut du faussaire. parce que moom nee na daan falsifier chiffres yi peut-être Cheikh dafa nekk koo xam ne dañ ko yar Bougane Bougane président Bougane dem ci conférence de presse moom nee na Cheikh Diba ñëwul parce que àndul ak li nga xamante ni ñi lañ fas ne moom doxalee xamul xam nga apparemment moom président Bougane yéen ñii sax ci opposant yi moom moo leen information man j'ai mais aussi je suis énarque je, je suis énarque mm. ce de l'État mm. c'est que premier ministre dix jours à l'avant mënul convoquer un truc aussi important mm. et que le jour J parce qu'il mission voilà donc pour man pour man loolu la. Mhm. léegi ma fàttali la li nga xamante ni moom la PM wax yëpp ci yéen ma liiral la ko monsieur le ministre. waaw nga déglu ko nga. wax waxi waxi waa moom jarul dóor sa doom. <laughs> non mais mais nag <laughs> moom wax moom ay waxam jarul dóor si doom. nee na te moom moo fi waxoon présidentiel moo bo moo ko waxoon France 24 présidentiel moo ci bokk il va y avoir un chaos indescriptible di moo ko fi waxoon. Mhm. di moo di moo fi waxoon loolu. waaw présidentiel amul. est-ce que kawoo am na. am na kay. Ah? am na. kawoo amul. ah mais parce que moom bokk na ci présidence yi. Oh, déedéet ah, bokk na kay. nu mu bokkee mooy Sonko Sonko mooy Diomaye <laughs> monsieur le ministre vous aussi donc euh, li mu wax nee na nee na. les autorités que nous avons wax dara de Diomaye deviendra Senghor xam nga yàgg ko wax Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye deviendra Senghor ba booba dañ les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et partenaires en donnant des chiffres erronés euh, loolee la wax euh, ils en veulent pour preuve le déficit budgétaire qui euh, selon euh, le rapport euh, mmh. au double euh, du taux qui avait été annoncé par l'ancien régime la dette publique également qui était annoncée 000 milliards, euh, 13, 000, 13 000 milliards, oui, j'y de francs CFA, et en réalité à 15 000 milliards, expliquer ñu loolu. waaw mu ñëwaat ni mu ñëwaat ni cinq cent milliards de francs CFA ont été dépensés sous le sceau du secret défense permettant à certaines autorités de l'ancien régime de s'enrichir sans cause sans que le trésor ne soit au courant ci lu ne ma si la waxee Moustapha Ba Amadou Ba président Macky devront s'expliquer mhm. devant les Sénégalais euh, l'actuel ministre de l'économie du plan et de la coopération daal di ci dolli ni toll ci 605 milliards sont introuvables dans les caisses de l'État te nee yooyu les fonds maanaam lu ñu waroon utiliser la ci li nga xamante ni moo di ci 2024 bu ñu nekk mais da ko utiliser laataa même ñoom jël li nga xamante moom moo di nguur bi li may wax sa guerre contre le Sénégal quand même c'est quand même bizarre premier ministre du Sénégal taxaw di wax affaire secret défense en public quand l'État a des règles si tu estimes que ça c'est du secret défense affaire yi demande à l'armée de faire des enquêtes li ma wax dem un premier ministre ne fait pas de déballage un premier ministre agit Sonko day confondre primature ak grand théâtre la primature c'est pas un grand théâtre xam nga premier buy toog naan woy affaire secret défense en public dans la rue le secret défense mais moom secret défense son ministre de la défense là son ministre de la défense le général Birame Diop hmm. mais moo nekkoon chef d'état-major général ko lii lii lii demande armée am na lu ñuy wax IGFA inspection générale de forces armées et c'est pourquoi dama lay wax état le contrôle est permanent donc doo xaar ba alternance ni wëy damay déballer. mais ndax mun nga ko ndax mun ndax mun nga ko tuddee déballage te taag maa lay rappeler que ni lu nu mel ak exercice légal la. waaw mais exercice légal mais exercice légal moom mooy préjudice du Sénégal. xam lu mais li mu def. li mu def moo gën a. nga xamante ni sax code de procédure de transparence déedéet li may France qu'on comme les grandes démocraties mais am na secret défense est-ce que di xalaat président États-Unis wala wala premier ministre Angleterre wala président France taxaw ci conférence de presse affaire secret défense secret défense su boo yaakaaree ne affaire jaarul yoon wala IGFA ça s'appelle inspection générale des forces armées nga leen lii lii lii yaa ko bëgg nga wax son ministre de la défense xam nga li may def li may wax que le gars yaa guerre contre le Sénégal c'est vrai kan moo nekkoon euh, kan moo nekkoon son son ministre de la défense le général Birame Diop mais moom nekkoon na chef chef d'état-major général des donc lii mënoon na ko woo laaj ko ni ko affaire nu mu demee fait mooy fait mooy une enquête. 2500 milliards tamit jël nañ ko sans pour autant que trésor yëg ko. mais loolu mais 2500 xam nga imagine 2500 milliards c'est presque le la moitié du budget du Sénégal loolu na muy dis loolu na muy disparaître beneen affaire ma doon wax. Ah. tey jii buy wax euh, Cheikh Diba. Mm-hmm. était directeur de la programmation budgétaire. oui tey jii li may la fierté du Sénégal et que Sonko veut que Sonko veut détruire mooy ministration il faut que Sénégal bi seen bët Sonko a essayé de détruire l'état du Sénégal de l'extérieur il n'a pas réussi il veut le détruire de l'intérieur c'est ce qu'il est en train de faire et démb il a gagné une grande bataille il a gagné une grande bataille dans sa guerre contre le Sénégal parce que tey tey tey jii partout dans les milieux financiers du monde la cote du Sénégal a baissé parce que ñoom dañoo gis premier du Sénégal toog de façon officielle et solennelle ni leen le Sénégal est un état faussaire il comme après les émeutes qu'il y a eu ici en 2021, il a sorti un livre blanc pour dire que Sénégal, c'est là où il y a eu le premier coup d'État. Si le Sénégal est le pays où il y a eu le premier coup d'État, donc exception sénégalaise, Sonko est cohérent dans sa logique depuis Il est en guerre contre le Sénégal. Maintenant, le Sénégal, nous sen bête. Té bu yagé, bu yagé, bu yagé ñu sen bête. Lim bëgg yaq moy ce qu'il appelle le système. Bok son projet bi mu doon wax là, son projet le projet projet le projet. Projet bind. ñi muy ñi muy yàq seen der tey jii ñoo bind projet bi xam nga bu ne ñi ils ont fait du faux boo demee ministère des ministre de l' économie et des finances mais dara changé wu fa le ministre rek moo changé Moustapha Ba moo dem Cheikh Diba toog Maguette Niang mi ngi sur place Mag Maguette Niang mi ngi sur place ñeneen. projet bi sax pour rappel ñu ngi jëm nga xamante ni moom moo di projection bi gis nga ñi fa nekk ñi nekk fonction au fonctionnaire yi ma xam ñu nekk ministère des finances y' pas de personnes plus vertueuses et plus compétentes que ñoom au Sénégal mais ñooñu moo na leen toog naan vous avez marqué des chiffres tey jii boo demee ministère des finances ñi muy boo demee ministère des finances Moustapha Barry moo changé tous les hauts fonctionnaires sont là-bas les hauts fonctionnaires là ñoom ñoo leen sauvé wax naa ko bërki démb le système que Sonko dénonce sauve Pastef du ridicule en rédigeant le projet ñoom ñoo ko rédiger en fast track parce que ñoom depuis dix ans ñu ngi doon wax projet projet projet moo suñu génne benn document en trois mois ou quatre mois. les jëm ci projection bi. mais fon fonctionnaire bi maa ngi gis sax ñenn ci yéen commencé. fonctionnaire bi nañ ko ndax nee nañu nee nañu lan moo waral. Euh, fonctionnaire bi nañ ko date projection bi ñu mujj ko envoyé. mais parce que ñu ne dafa am ay similitudes. ak li nga xamante ni moo di moom moo di PSE. c' est là c' il faut être fier du parce que c'est une continuation du PSE le PSE sorti en ñu yóbbu ko ba en 2050 moi lire naa document bi donc ce sont ces gens-là qui ont dévoué leur vie au Sénégal. mais si mais à l'économie ñooñu tey. mais projet bi monsieur le ministre war woon roog ak PC e bi parce que projet bi biñ ñu koy jaay boobu yàgg na. oui boobu accédé gu ñu woon sax ñoom au pouvoir kon pourquoi mu war a am ay ponk yu ñu roole ak li nga xamante ne. mooy bi e naxe mbaay la woon xam nga li woon naxe mbaay li gën a bon ci état mooy faussaires. C'est-à-dire l'État du Sénégal n'est pas un faussaire, n'est pas un État faussaire. Mais les gens de PASTEF, c'est des faussaires. Lire le communiqué du Conseil des ministres du avril Mais Sonko fait que dans le communiqué du Conseil des ministres qu'ils sont en train rédiger le projet, que ça va présenté en septembre. Donc pendant ans, nga ne am nga projet. pendant ans nga ne nit ñi quatre sénégalais dans la diaspora ñoo la ko bindal mais boo ñëwee mais li may wax ci euh, administration Sénégal c'est des gens de qualité des gens compétents des gens vertueux mm. et puis des de grands patriotes au sens noble du terme gis nga ñooñu. Uh-huh. bi ko Sonko waxee le 24 avril ba léegi. Uh-huh. ñooñu ñoo tëju bind projet bi. mais beneen question tam bi ma jaaxal euh, comment est-il possible que depuis douze ans de régime. Mm-hmm. Euh, institution financière internationale yu mel ni comme FMI euh, ñoom jot mënuñu woon distinguer des chiffres falsifiés comme démb ni nga xamante noonu nañu ko le PM révélé. de chiffres est que dans ce sax ñoom. <laughs> ben crédible nañu pour ñuy évaluer li nga xamante ni moom moo di les états dans leur performance mais c'est ça c'est ça la c'est ça la manipulation la manipulation c'est de vendre du vent y a pas c'est pas des chiffres falsifiés mais le l'actuel ministre de l'économie il était au FMI FMI am nañ bureau à Dakar et tous les trois mois il a des rencontres entre le FMI ak le gouvernement du Sénégal et puis combien de fois en tant que journaliste nga fi nga fi dégg la mission du FMI combien de fois en tant que journaliste ngeen wooy la mission du FMI et à Dakar mm-hmm. mais Sénégal ñu mën a ndaxee FMI une agence des nations septembre bi rek ñëwoon nañ. septembre bi ñëw nañ mais ñoom loolu la ñu a nëbb exactement loolu mooy manipulation xam nga ñoom bi ñu ñëwee FM bi ñu ñëwee dañoo leen wax que les perspectives du Sénégal sont négatives que l'économie ne fonctionne plus donc les chiffres sont négatifs et puis vous allez vers des temps difficiles li am en termes mooy ñii. lu bokkul ak li nga xamante ne nañ loolu FM waxoon en juin. mooy ñii en juillet mi fi ñëwee ñii en termes simples ils n'ont rien créé. li fi Macky Sall bàyyi le consommer bu jeexee nag. ku nekk xam nooy boote sa doom. donc ce sont ces ah. loo bëgg wax si nii li fi mais Penda depuis six mois est-ce que gis nga président Diomaye Faye wala Ousmane Sonko wax loo xam ni day defar wala day créer richesse depuis six mois ils ont augmenté les impôts ils ont harcelé les entreprises boo xoolee la commission le développement mooy ñaanit ou bien c'est local ils ont asphyxié tous les entreprises au niveau local leneen li mooy l'investissement mais kan mooy ñëw investir dans un dëkk dans un pays boo xam ni nee nañ une commission nationale de de de renégociation des contrats ça veut dire kaddu état Sénégal jaratul dara. kon euh, état du Sénégal jaratul dara. mais maintenant pour ñu am pétrole. depuis combien de temps ça fait presque dix ans quinze ans qu'on négocie qu'on signe des contrats on va avoir un baril yow état nga ñëw nga nga ñëw demee renégocier contrat yi mais ñun contrat On n'est pas dans le populisme. Dans tous les pays, il y a des renégociations de contrats, mais ça se fait dans le secret des bureaux. Mais imagine yow nga nekk un investisseur sérieux nga damay ñëw investir Sénégal parce que dans toute la sous-région moom rek moo fi am jàmm moom rek moo fi am paix civile moom rek moo fi am un système judiciaire qui fonctionne nga toog sa jël sa avion bay ñëw nga dégg ni wooy dafa am commission nationale de renégociation des contrats a a dafa a dafa nar a dégguma pël mais li ñuy wax gas yi li Ousmane Sonko def démb xaala ah, gas yi jeex na xam nga lu tax mais xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal les réactions des marchés financiers mhm. boo gisee dëkk yu mel ni Dubaï am doole xam nga lu ko lu ko indi mhm. Dubaï Malaisie ak la Chine même la Chine tous les pays qui ont qui ont émergé c'est avec c'est des investissements directs étrangers l'argent li mu def démb nag mhm. il dit aux étrangers état bi ngi bëgg ñu indi seen xaalis c'est un état faussaire li ma doon wax boo xoolee depuis le néolithique. Mhm. c' est la première fois ñu gis un premier ministre. Mhm. wax ci àdduna bi jàkkaarloog àdduna leen kat état bi may jiitu c' est des états fausses. alors su fekkee nag nee na la situation euh, n' est certes pas reluisante mais elle n' pas irrécupérable <laughs> pour autant. mais <laughs> moom moom ba mu faloo ba daal yëf yi doy na waaye daal terewul mën nañ ko ba tey. jooyanti euh, le pays n' est pas en ruine le pays n' pas en ruine mais ils sont en de transformer l' état en un l' état c' le prestige. Et il n'y a pas de précision à distance. À il ne le Premier ministre confonde la primature ak le grand théâtre. L'État de la demande du prestige. foofu mu nekk nek du Dia moo fa toogoon foofu mu nek Habib Thiam moo fa toogoon Un premier ministre ne fait pas de déballage. Un premier ministre agit. C'est le chef du gouvernement. Boudé amna lo xamni gis na ni jaarul yon nako régler. mais premier ministre warul nekk déballage. mais mu ngi ci ci logique boobu la nekk. lan la jubbanti lan la fi jubbanti. ah lan la fi jubbanti. mais gis nga ñoom li ñu ko wax c'est-à-dire que chaque génération damay wax souvent que chaque génération daa am looy def loolu moo ñu may chance gis nga li ñu différencier Guinée Mali ak yeneen dëkk yi nous on de la chance cest dire alternance en alternance de génération en génération le Sénégal se construit Senghor bu mu ñëwee lu mu def la nation Sénégal moom problème ethnique Diouf bi mu ñëwee lu mu fi def ah, Abdou Diouf pendant vingt ans gisoo benn bâtiment bu bu mag bu ñu Abdou Diouf moo ko mais Abdou Diouf n'a la nation Abdou ab Ablaye Wade bi mu ñëwee émergence ubbi bunt émergence ñu commencé dafay autoroute gi demee noonu Macky Sall ñoo continuer ñii bi ñu ñëwee foofu la ñu waroon lañ leen doon xaar ñu ni kat Macky Sall waxoon na leen Sénégal dina émergence deux mille trente cinq boobu gerte lañ am ak phosphate léegi am nañ pétrole donc émergence du deux mille trente cinq deux mille trente la. vente du rêve. cent cinq milliards yooyu. Euh, am na ñu ne euh, déjà lu nu mel du information puisque déjà mu ngi figurer ci loi de finance bi et que euh, koppar la yu ngeen utiliser woon ci jamono ji nga xamante ni Covid 19 bi ñoo ne fi ba génn pour gën a mun a jooyante en tout cas jàppale li nga xamante ni moom moo di askanu Sénégal. ci li ñeel wàllu subvention yi ak yu du mel. waaw mais xool boo xoolee Covid li may wax xam nga Covid 19 Cour des comptes kañ def rapport am. Cour des comptes 2022 xam nga amul dara amul. Cour des comptes def benn rapport en disant à l'état du Sénégal les mille milliards yi leen joxoon pour ngeen def ko ça a été bien géré mais sur zéro virgule huit pour cent am na problème sur zéro virgule huit pour cent yooyu le président a dit nañ ko leeral donc coow li ngay dégg ci rapport Covid yëpp c'est zéro virgule huit pour cent des de des mille milliards donc yaakaaroon nga Cour des comptes moo moo moo moo génne rapport bi moo tax bi Amadou Ba def sa sa DPG député interpellé ko ci donc loolu mooy état Sénégal c'est pas un état faussaire. mënoo am xoola cour des comptes bâtiment bi ñu am yaakaar nga ne état fossé nañ jox bâtiment ba fi noonu cour des mais di yaakaar nga état fossé dina am dina am IGE yaakaar nga ni cour des comptes état fossé dina am dans tous les ministères inspection des des et financières combien de fois tu crois pendant cinq ans daal nit ñi dañ leen di jox. ñuy wax lu leen neex ba alternance am ñu ne fonctionne pas comme ça. monsieur le ministre bu fekkee ni euh, yow euh, lii Le Pen wax démb yëpp jàpp nga ni lu nu mel dëppoowul ak li nga xamante ni moom moo am dëgg-dëgg. Mhm. su ma la comprendre bu baax. kon lan moo waral moo yëkkati yooyu la am na nag ñu ci am ñaari explication am na ñu jàpp ni c' est pour préparer ñi nga xamante ni ñoo di askanu Sénégal ci ñoom li nga xamante ni maanaam mooy di seen télé. ci fi ñu jëm am na ñeneen ñu jàpp ni tamit c' est juste ay éléments de langage la ñuy wut pour euh, campagne bi nga xamante dëggoon ne ko muy législative moo ci jàpp. ñaari explication laa ci benn bi ñaari explication laa ci benn bi mooy li ma yaakaar di ma di wax. Mm-hmm. que monsieur Ousmane Sonko est en guerre contre le Sénégal. et hier il a gagné une grande il a une grande il a gagné une grande bataille parce que tey jii boo xoolee moi je m'intéresse à l'économie sur toutes les places financières du Sénégal sur toute la, toutes, les, toutes, les, places financières du Sénégal, mm-hmm. la note du Sénégal a baissé. Donc, il a remporté une grande victoire contre, il a remporté une grande victoire contre le Sénégal. Ben explication, bi, moi, <laughs> comme nous, ils ont perdu six mois. Mm-hmm. BFMI ñëwé lim leen waxone que le premier trimestre la kat li ngeen dawal mm-hmm. li ngeen dawal dalul xel. Donc et puis deuxième trimestre moy nara gëna ñang. Il anticipe sur ça. Donc dañuy wax sénégalais yi li fi as tour li fi Macky Sall bayi won mom lañuy gérer ni. Bu démé ba jeex nak nu waay xam boote doomam nu golo xam boote doomam en terme simple loolu la c'est-à-dire que état day créer richesse maintenant c'est après avoir la may état ñaari loxo la am la main droite ak la main gauche la main droite est celle qui taxe les entreprises et les particuliers la main gauche est celle qui redistribue donc la création de richesse moom mooy fonder état dëkk yi développé yëpp c'est la création de richesse donc l'état a trois rôles la paix civile la sécurité loolu état rek moo ko war a def beneen bi l' état doit créer les conditions pour que mm-hmm. les sénégalais mm-hmm. puissent pratiquer librement leur religion mm-hmm. gagner de l' argent et bien vivre ñoom aspect boobu lañ deful aspect boobu l' de l' état là l' argent de l' état ne tombe pas du ciel donc comme l'économie comme j'avais dit l'économie est dans le commun bientôt ils vont avoir des de ressources donc ils préparent les sénégalais psychologiquement c'est tellement facile de d'utiliser Macky Sall comme bouc émissaire Macky li mu fi def ça a par le livre blanc, les chiffres du livre blanc. Ça a été attesté par les rapports de la Banque mondiale et du FMI qui avaient classé le Sénégal parmi les pays les plus euh, les plus dynamiques du monde. Mais Penda yaakaaroon nga ni pendant 12 ans bu doon Macky day def faussaire du ñu fay salaire yi pendant 12 ans les salaires ont payés. pendant 12 ans, il a fait le, le, BRT, il a fait, il a fait le BRT, il a fait le terre. Mmh. Comment un État faussaire peut faire tout ça D'accord. Bon, Donc l'État n'est pas un faussaire, mais c'est eux les faussaires. D'accord. Bon, les présidents. Et puis, les gens qui à titre personnel, les gens qui aux fonctionnaires, nous savons depuis 20 ans, 30 ans, toute leur vie, c'est l'État du Sénégal. Toute leur vie, c'est l'économie. Nga tok di jakarlo nan len nga woté réunion tok jakarlo ak yow. Té malheureusement ñom ils sont wax. bi Moustapha bi ne bi Moustapha Ba di nekk ministre des finances Cheikh Ba moo nekkoon le directeur de la réglementation budgétaire Maguette Niang moo nekkoon euh, le numéro 2 presque du ministère c'est le bras ñooñu ngi foofu ba léegi li may wax souvent la chance du Sénégal y a que le ministre ki part l'administration demeure. les régimes passent l'état demeure loolu nag monsieur Ousmane Sonko loolu la bëgg a yàq. dans sa guerre contre le Sénégal. d'accord ci ci kaw geram boobu kon yow euh, gëmoo ni non si wax nga ko sax nee nga jàpp nga déjà ñaari ñaari raison yëpp jàpp nga ni kon élément de langage la pour waajal li nga xamante ni moo di législative ñu ngi ciy ñëw mais. et puis li ñu ci war a yokk le Sénégal va vers des difficultés économiques terribles parce que premier donc Sénégal buy chercher xaalis sur la sur euh, sur dans le monde les primes d'assurance vont augmenter la notation va être négative ça veut dire on va payer le prix de l'argent assez cher comme ñoom créé wuñu richesse nag ils vont ils vont être obligés d'aller encore chercher de l'argent à l'étranger maintenant booy chercher encore de de l'argent à l'étranger ça va être beaucoup plus cher donc c'est c'est ça que le premier ministre a fait et li ma doon wax bu yóbboo en tant gëstu ko c'est fois dans l'histoire du monde qu'un premier ministre ni leen mon état est c' est la première fois que ça arrive. non mais France tey jii France tey jii xam nga seen déficit ñaata la xam nga France seen déficit ñaata la. non mais xaaral nag non mais monsieur le ministre na waxee ko noonu c'est-à-dire moom dafa gën a joxoñ baaraam tuuma ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. waaw mais l'état ah, comme pour di waa d' accord certes mais comme pour dire que ni peut être ñoom ci seen nguur loolu moom mun nañ ko bañ a xaar sax nag ñoom. waaw mais que yéen ci seen nguur. xam nga l' économie ce qui est important l' économie. et que quelque part sax peut être li mu wax dafay gën a justifier li nga xamante ni moom moo di reddition des comptes bi nga xamante ni ñu ngi leen koy ñu ngi leen voilà. les faits ñu ngi leen ci gën a viser en tout cas en économie le le jugement le plus important c'est le jugement des marchés financiers ni nga dalee xel nii laa biir expliqué ko nii mais la les marchés financiers ne l'ont pas compris comme ça xam nga boo dee journaliste nga dañuy wax le tribunal du journalisme c'est l'opinion notre tribunal c'est l'opinion ah oui. économie le tribunal ce sont les marchés financiers parce que ñoom ñooy leb la xaalis ñoom ñu banque mondiale FMI ak yu demee ñoom ñooy le c'est notre tribunal ñoom ni ni ni ñu ci dalee xel nii ñoom conception boobu. parce que ñoom dañoo jàpp que Sénégal est un état faussaire donc comme Sénégal est un état faussaire boo demee ci banque nga leb fa xaalis def fa njuuj njaaj. mais boo ñëwaatee non un ou bien duñu la lebal ou bien ñoom ñu jël ay toutes les garanties c'est au moment où le Sénégal c'est au moment où ñoom rey nañ l'économie au niveau interne nga xam ne ils devront chercher de l'argent alors président Macky Sall tamit am na tamit beneen distinction. waaw waaw waaw waaw ko de félicité naa ko de vive voix <laughs> félicité ko de vive voix. Mm. daal li ñuy wax c'est-à-dire il faut que Sénégal ñu dellu ci loolu. nu mu def moom moom mais mi ngi ci jàmm alhamdulilah. xam nga li ñuy wax nul n'est prophète chez soi. nul n'est prophète chez soi. yéen a ngi déggante ba tey. waaw waaw ah, <laughs> xam nga li ñuy wax cest à lii mooy Sénégal c'est-à-dire lii c'est-à-dire lii mooy Sénégal. Mm. Abdou kii euh, euh, Sénégal dañ ak am na exemple moo joxe barki dem boo xoolee Ablaye Wade. Mhm. loolu gis nga monsieur Ousmane Sonko loolu la bëgg a yàq. Mhm. Abdou Ablaye Wade bi ñu ko falee 2000 lu mu njëkk def yaa ngi fàttaliku. bu ñu ko ko falee 2000. waaw lu mu njëkk def. lu mu njëkk a def seet yaay Abdou Diouf yaa ngi koy fàttaliku bi ñu ko falee président avant même de prêter serment dafa dem Louga ndeysaan nuyu yaay Abdou juuf mu rafet ndeysaan ñii lu ñu def convoqué goro Macky Sall dikk. yaay Marième Faye Sall c'est-à-dire Sénégal il faut ñu dellu ci loolu. Ah, mais mais su Goro Macky Sall defee tamit c'est pas parce que Goro Macky lu tax ñu dellu ci ginnaaw ne censé être au-dessus de la loi la loi est applicable lu nekk lu nekk lu nekk dañ koy rafetal Abdou Diouf bi mu fi jógee dafa tuddee Macky dafa tuddee Senghor bi mu fi jógee Abdou Diouf da ko tuddee stade Léopold Sédar Senghor tuddee ko avenue Abdoulaye Wade bi mu ñëwee la même chose Abdou Diouf dem francophonie Macky Sall bi mu ñëwee stade loolu mooy Sénégal sa dëkk dafa am héritage ak tradition. dañuy wax Sénégal ñun ñëpp ay mbokk lañ. Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. d'accord il faut ñu delluwaat ci il faut ñu delluwaat ci loolu. d'accord léegi monsieur le ministre donc loolu nag àndul ak fitna. d'accord léegi monsieur le ministre. ma ñëw ñu wax ci li nga xamante ni moom moo di ci législative yu 2024 euh, xam nga ni nag euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, annoncé woon na li nga xamante ni en tout cas moom moo di la date des législatives. Mm-hmm. ñu jàpp ko ci le 17 novembre ñu ci jëm nag ci lu ni mel nag depuis lors politicien yi ku ci nekk yaa ngi teg say stratégie. alliance yi tamit fu mu ne nii moom bëri na lool yéen euh, APR ngeen fas yéene tamit. non bokkuma APR waaw d' accord d' accord. foo <laughs> dama la explique man. man man non man bokkuma fenn man dama nekkoon dans secteur privé. ma nekkoon dans secteur privé alhamdulilah. li ñuy wax mais mais ça dit mais mais mais lu ni ko bañ. parce que déedéet dama koy bañ kay si dama koy bañ ñoo xam nga lu tax. aw ma carte APR mosuma dugg siège APR. d' accord xam nga man lu ma ci dugal. Hmm. dama nekkoon dans secteur privé alhamdulilah li euh, li ñuy wax la jouissance de la sphère privée. je jugeais tranquillement de ma sphère privée de temps en temps je faisais du service civique national intervenir dans les médias pour participer au débat public mhm. quand j'ai vu les événements de mars mhm. quand j'ai vu que l'État était dans la rue le bien le plus précieux que nous avions était presque dans la rue était presque tombé que la soumise sama yére ah li ma nekk dans la jouissance de la sphère privée de gérer ma petite famille état du Sénégal bu daanoo Sénégal waaye bi bi ñu am ci àdduna mu gën a rafet ñu ñu nekk dëkku Afrique boo xam ne masul am coup d'état état masul dans la suite des émeutes j'ai vu ça je me suis dit mon devoir moi je dois tout à l'état du Sénégal je dois tout à la République Thiaroye laa dëkkoon fu ma egg parce que l'école publique était gratuite le collège était gratuit le lycée ñaar lañ doon fay 4700 donc je me suis dit je dois salter du Sénégal c'est pourquoi mon habit de chef d'entreprise du privé ma wékk ko dem jàppale état du Sénégal pour état bañ donc loolu nag macha allah alhamdulilah la l'avait réussi. parce que ki bëggoon daane état bi. Mhm. jàpp nañ ko tëj ko ci kaso bi pendant onze mois te dara xewul. ba Macky nag dans sa grande magnanimité mu. mu amnistie y a pas léegi en tant que politologue. noo jàngatee li nga xamante ni moo di wàccaay bi ñu am jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo di législative yi ak jeu d'alliance yi nga xamante euh, am na euh, benn bokk yaakaar wala bokk APR. décidé ànd ak ñenn ci waa PDS puisque gis nañ ñeneen ci waa PDS yu ni ñoom ñooy euh, waa PDS authentique en tout mhm. cas et ñoom ànduñu ci boobu de dogal ñoom il compte quand même peut-être xool leneen lu ñu war a mun a ah, teg comme PDS ah. mhm. <laughs> authentique en tout cas mhm. ñoom quand même ànduñu ci boobu de dogal gis nañ tamit ci beneen wàll ba Amadou Ba bi nga xamante tey ji socialiste yi euh, porté nañ li nga xamante en tout cas moom moo di candidature euh, mu ànd ki tamit ak ñenn ñi nga xamante te nii ñu ngi woon ci Benno Bokk Yaakaar ñu gis tamit ñeneen euh, ci opposition bi ñu mel ni Bougane Gueye Dany Pape Djibril Fall Khalifa Sall Barthélémy Dias Thierno Bocoum et autres ñoom it formé seen coalition euh, boobule coalition sax dañoo naroon tey wàcc sur le terrain mm-hmm. amal li nga xamante ni moom moo di mobilisation boobu li mobilisation nag préfet da koo dàq. Mhm. déjà sax laataa ñuy ñëw dans le fond ci li nga xamante ni maa ngi koy laaj ci législative bi bu ñu taxawee en tout cas ci ndogal bi nga xamante ni tey préfet jël na ko euh, bi nga xamante ni waa ATEL tey dañoo bëggoon wàcc sur le terrain euh, organiser ab rassemblement bu mag foofee ci place de la nation nee nañ euh, daf ko. annulé. Mm-hmm. Euh, maanaam daal autorisé wul boobu lay demande te pour rappel ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo fi yoroon nguur ñoom ñoo daan kaas ni manifestation dañ ko war a dañ ko war a di di di di nangul ñi nga xamante ni en tout cas ñoom ñoo koy di ko autorisé su ko defee euh, ñoom ñu mën a wàcc sur le génne li nga xamante ni moo di mm-hmm. seen métit. Mm-hmm. non dans le principe euh, en termes de liberté. l'interdiction doit être euh, l'exception et l'autorisation la règle la, règle mhm. c'est pourquoi ñuy wax un régime euh, un régime déclaratif mhm. li ma gis euh, apparemment le préfet la doon wax à la dernière minute nañ changé itinéraire yu demee ils n'ont pas pu s'organiser pour changer d'itinéraire mhm. mais il faut que juste que le le préfet de Dakar que salue au passage. parce que éviter ay troubles oui voilà cest dire il faut aussi que Sénégal ñu dépassé yenn parce que comme on dit comme on dit les les régimes passent mais l'état l'état <coughs> les les régimes les passent l'état demeure. Mhm. donc les magistrats les préfets. les militaires. Mhm. il faut ñu génne leen dans le jeu politique parce que li may wax souvent les mhm. politiciens ont des CDD contrat à durée déterminée les hauts fonctionnaires ont des CDI. Mmh. Donc il faudrait que tout ce qui est magistrat, préfet, administration territoriale, ñu génne leen dans des trucs politiciens et que mmh. politiciens yi gérer seen seen affaire. Mhm. Maintenant ci législative li may wax comme oui. disent les communistes. Mhm. Il y a une contradiction principale et la contradiction secondaire. Il faut que les gens de l'opposition s'unissent pour régler la contradiction principale qui est Pastef. maintenant bu ñu régler la contradiction principale ba pare ñu mën a ñëw à des contradictions secondaires koo xam ni da nga nekk opposant di taal dëkk bi di taal dëkk bi di menacer di taal ay maison de presse ak lu nekk tu crées une terreur moo tax quand am benn intellectuel ni way Sonko comme Mandela des trucs comme ça mais ça c'est la courtisanie intellectuelle Sonko c'est plutôt Charles Taylor Charles Taylor moom moo doon wax j'ai tué ta mère j'ai tué ton père j'ai tué pour moi donc Sonko c'est plutôt Charles Taylor boo xoolee sa le gangstérisme politique de Pastef dans l'opposition koo xam ne il a fait du gangstérisme politique dans l'opposition nekk au pouvoir commencé instaurer un régime de terreur à l'unité lui-même par l'état Pastef donc kooku bu amee majorité assemblée nationale fu dëkk bi dem xam nga nag les démocraties sont fragiles par rapport au populisme bu ñu comparer Hitler nii la ñëwee au pouvoir Hitler nii la ñëwee au pouvoir dafa def coup d'état dafa def populisme coup d'état raté prison amnistie élection victoire Sonko dafa def insurrection raté prison amnistie élection victoire maintenant fi ñu toll c'est pourquoi je vais en profiter à ce moment précis j'avais dit le next step de Pastef pour instaurer leur état totalitaire il leur fallait deux choses domestiquer les juges et domestiquer la presse et Pastef vient d'enregistrer sa première défaite face à la presse Et c'est pourquoi, comme je dis aux journalistes, les journalistes qui avaient servi de tremplin à PASTEF ont été le dernier rempart pour sauver la République. xam nga door a redressement des trucs comme ça léegi affaire ne teg nañ parce que pour que PASTEF réussisse son projet il fallait que PASTEF puisse domestiquer la presse. puisse dominer la presse puisse coloniser la presse et ça c'est un échec lamentable boo gisee Cheikh Diba waxtaan na ak les patrons de presse c'est-à-dire que finalement ils vont trouver un arrangement la presse va continuer à être libre et plurielle donc j'en profite pour profiter tous les confrères d'avoir été le dernier rempart maintenant boo xoolee li may def affaire Hitler Hitler quand il est devenu chancelier bi muy nekk chancelier il était numéro 2 il n'était pas Sonko bi muy nekk premier ministre <laughs> il est numéro deux il n'est pas numéro un maintenant c'est après les élections législatives en Allemagne que les députés où les nazis avaient la majorité ont donné les pleins pouvoir aux, euh, nazis on a vu la suite Sénégal foofu lañ toll nag élections législatives c'est des élections très importantes ce sont les élections législatives les plus importantes de notre histoire koo xam ne dafa def du gangstérisme politique bi mu nekkee dans l'opposition ñëw au pouvoir instaurer un régime de terreur voulait instaurer un régime de terreur mais heureusement que la presse a freiné les ardeurs de la terreur maintenant kooku boo ko joxee majorité assemblée nationale fu dëkk bi jëm fu dëkk bi jëm et c'est pourquoi je dis la contradiction principale là l'opposition que l'opposition comprenne ça la de limiter les de Pastef aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique mooy que opposition bi am majorité assemblée nationale Sénégal dem dans un régime de cohabitation et cohabitation loolu moo gën ci Sénégal luy cohabitation mooy bu dee opposition bi ñoo majorité président Diomaye Faye il est obligé de nommer un premier ministre issu de l'opposition donc koo xam ne bokku leen bokku leen camp di ngeen waxtaan donc le président de la république moom mooy signé nomination yi mais premier ministre opposition bi ñoo koy proposé dama la jox benn exemple bu gisee coup d'état bi am Côte la France n'est pas intervenue parce que coup d'état bi dafa am Chirac a dit il faut que l'armée intervienne Jospin premier ni ko non monsieur le président les accords qui nous lient à la Côte d'Ivoire parlent d'agression extérieure un coup d'état n'est pas une agression extérieure donc on n'interviendra pas gis nga cohabitation bi amee Sénégal nag loolu moo loolu mooy di jàmm ku ci nekk di nga surveiller sa morom président du mën a def lu ko nee premier ko neex donc maintenant bu dee ñu donc c' est le président qui signe la nomination mais c' est le premier ministre propose. mais à ce rythme là ndax jàpp nga ni Pastef mun na majorité écrasante à l' assemblée nationale d' que ni politique addition la euh, te gis nañ fan yi ñu bees ñu yokkute ñu wàllu ñuy en tout cas ñu rallier li nga xamante ni moom moo di Pastef ginnaaw ba ñu décidé ñoom dem ci li nga xamante ni moo di bañeeku Pastef sans la coalition en tout cas Diomaye président euh, Mame Mbaye Niang Mame Boye Diao plutôt. moom mhm. fekk si na leen déjà fekk si ku mel ni Mame Boye en tant que tey jii figure politique fii ci réew mi ban jàngan nga ci am. non non mais ça dire que chacun est libre d'avoir ses ses propres stratégies mais li gën a am solo c'est pas les combinaisons politiciennes xam nga les politiques dañuy def ñoo ñëw. c'est que boobu les combinaisons ànd na. non mais ji nga xamante ni sax am na ñu nga xamante ni peut-être ñi ngi doon xaar à ce que moom mu bokk ci nga xamante moom moo di région des mais xoolal Mimi Touré elle a été ma te ji ma nga fële. mais xam nga jamono ji ñu nekk nii ku quitté xam nga mi ni sax mi on peut comprendre sax que ni dem na avant mais ki jamono ji ñu wax nii non euh, yi. <laughs> nga xamante ni fan yee passé bi ñu gisee ab liste bu fuité sax gisoon nañ ki turam xam ñu nag ndax loolu c'est avéré ou pas mais quand même bu ñu gisee nii mu mu dëggal ni de mu dëggal demam am nañu ko jàppe ni est-ce que dawul làqu ah, ngir éviter boppam yenn yenn yenn mbir yi non no non non mais ça c'est des considérations mën ma ci dugg c'est-à-dire il a le il a il a le droit de le faire c'est pourquoi je dis que nous voulons une reddition des comptes mais pas de règlement de compte cest à bu dee reddition des comptes dañ ko def au sens noble du terme nga dem fële du tax juge bi woo la c'est ça il faut c'est pourquoi damay wax nañ génnee justice bi ci affaire politicien yi maintenant daw laa xufale bu dee def reddition des comptes la ñu wax pas règlement de compte bu dee règlement des comptes les juges wax xool leen fii les juges vont être sous la dictée de l'exécutif mais bu dee reddition des comptes la wax ak foo manti nekk nga nekk gouvernement nga nekk opposition le juge va te qu'on va va te rendre blanc li ñuy wax li ma ko mën a waxee en français que vous soyez de l'opposition ou de l'État le juge vous rendra blanc ou noir. et pour moi c'est ça foofu la Sénégal foofu la Sénégal war léegi alliance yu yu bëri yi taxaw nii ñii ànd fii ñii ànd fee ndax jàpp na li mel tamit stratégie bu baax la. te li ma yaakaar ni pour euh, que euh, la des comptes soit crédible il faut aussi qu'on que les juges entendent les gens de temps. Ah oui, c'est ça. Nous dans les deux camps, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de l'opposition, et puis euh, que les juges n'ont exploité tous les rapports. Mm -hmm. Donc les juges là, ils exploité, exploité tous les rapports sans exclusive. Mais pour l'instant, parce que jusqu'à présent, c'est un, un truc de, de règlement de compte. Mais donc il faut que les Sénégalais, demain aussi, bon, aussi, ministre de la Justice, que changement mi ngi bëgg am dem ba gisoo premier ministre la bi mu xuusee ba ko xuusloo moom dafa taxaw waaw dafa dafa taxaw ni ko non il faut ñu et puis boo xoolee aussi li Birahim Seck bind dem ba que la traque la ni et puis même les mots même les mots traque c'est violent il y a une présomption de culpabilité et la justice se fonde sur la présomption d'innocence la traque d'accord la traque c'est violent. oui mais monsieur le ministre ba tey sama laaj euh, sur les sur les multiples coalitions en tout cas yi nga xamante ni jamono ji ne am na ah, xam nga ni décidé nañu annuler li nga xamante ni moom moo di supprimer plutôt li nga xam moo di moom ku mu neex. Euh, samp sa gis nañ déjà actuellement plus de quarante huit en tout cas liste yi nga xamante ni nen dañuy dem ci li nga xamante ni moom moo di législative yi opposition bi wala bokk euh, société civile bi jamono jile eh, di proposer waat seen seen solution. boobu nga xamante ni ñeeloon li nga xam moo di bulletin unique bi. non ñooñu la société civile Sénégal. te déedéet bi. déedéet gis nga société civile Sénégal. amoon na njëriñ dans la dans la ndax yow ànd nga ci li ñu supprimer parrainage bi. dans la non euh, le conseil constitutionnel a dit que vu les délais c'est réduit ak yu demee noonu parrainage a demandé cent cinquante jours ça ça ça peut se comprendre le parrainage était un filtre parce que aussi quand tu vois les techniciens de l'administration li ñu waxoon que on ne peut pas organiser une élection pour cent candidats c'est pas possible donc il faut ñu def benn filtre koo xam ni waroo mën a am un pour cent li ñu wala fi di wax say mbokk ak say xarit ku ñu wóoluwul ku la wóolu da la xamul ku mënta am un pour cent pour une présidentielle à mon avis. aussi euh, c' est pas nécessaire que l' état gaspille de l' argent di la euh, gaspille l' argent di defaral di defaral di aussi tamit la euh, na li nga xamante ni moom moo di en tout cas recours bi nga l'état du Sénégal c'est-à-dire que nous avons nous avons un grand état avec des magistrats la seule différence nous on respecte les magistrats nous on les a jamais traités de clochards on les a jamais traités de criminels même bi ñu au pouvoir quand une décision de justice ne donc c'est ça l'État c'est la respectabilité quand tu incarnes l'État l'État c'est le prestige ma mosoo dégg ci ñun de notre camp quelqu'un ni way les magistrats sont des clochards wala way tel magistrat est un tel magistrat est un criminel te dégg nañ ko fi boo xoolee coalition li may wax législative yi législative yi uh-huh. l'enjeu est très simple uh-huh. ñii def nañ six mois maintenant sénégalais yi ñooy xool ñooy fal uh-huh. bu dee dañu c'est un référendum bu dee li ñuy dañ fi gis six mois dal na seen xel ñu voteel Pastef bu dee nag dalul seen xel ñu voteel opposition comme ça on va arrêter les dégâts li may wax souvent damay théoriser le demi tour démocratique. Mmh. lan mooy demi tour démocratique. am na temps boo demee ba rond point jam ñaajo comme yow waalo waalo nga <laughs> booy dem waalo da ngay jël gauche Thiès Ndar booy jëm Kaolack mmh. da ngay jël droite Mbour euh, après ñii nag dañoo ñëw ba ci rond point bi <laughs> bëgg dem waalo jël droite bi. demi tour may wax nag législative bi c'est l'occasion unique pour faire demi tour ñu leen sans waay wala fi nee nañ ku ko xamul fa nga jëm da dellu fa nga jóge Sénégal nag il faut ñu dellu fa ñu jóge et yi mhm. da koy démocratiquement damay damay cité damay comparer Sénégal ak Égypte mhm. li daal Sénégal moo daloon Égypte bi ñu falee les frères musulmans Mohamed Morsi lu nekk ñu promettroon ko des trucs comme ça bi ñuy au pouvoir ñu xam ne ñii xarañuñ ko ñu ko réglé mooy un mais Sénégal nag comme c'est une vieille démocratie ñun dañ koy régler démocratiquement maintenant régler ko démocratiquement mooy def un tour démocratique nit ñi kat bu ngeen bëggee dem Dagana yoonu Kaolack bi ngeen jël da ngeen dellu ginnaaw ba ci rond point bi ngeen jëlaat ne c'est-à-dire que nag loolu mooy la loolu mooy la solution le demi tour démocratique Sénégalais nag bu dee li gis dal na seen xel depuis six mois ñu voté Pastef bu dee dalul seen xel nag ñu voté pour l'opposition bu ñu voté pour opposition opposition en majorité ñu def ndànk demi tour def demi bu ñëwaatee ba ci rond point bi nag fa Macky Sall tegoon baaraamam ñu continuer liggéey bi comme Macky Sall defoon terre bi mu dem ba ay BD. ñun nag ñuy xool nu ñuy defee defoon na terre mu dem ba AIBD ñun nu ñuy xool nu ñuy defee terre bi mu dem ba Mbour wala nu ñuy defee terre ba dem ba Ndar donc loolu mooy enjeu bi bu dee dal na seen xel li ngeen gisagum dal na seen xel làmbatu bi ak lu nekk dal na seen xel ngeen votel Pastef bu dee doyul seen xel nag ñu def ndànk demi tour ñor ba ci rond point bi jël yoon bu baax bi. alors monsieur le ministre ça a plaisir di bàyyi nga tàggatoo le mot de la fin. mais le plaisir est, est euh, gi kër gi parce que je bi ma fi ñëwee yëpp euh, bi ñu ma ministre ñi ma njëkk seet si fii ci la bokk parce que j'avais estimé que c'était un peu l'avenir de la presse et que la presse allait vers mhm. donc euh, je me réjouis aujourd'hui que intuition ak sentiment bi ma amoon aujourd'hui quand on voit les statistiques que que que que ça que, que ça se confirme. Mm -hmm. donc comme sama kër la rek heure bu ngeen soxla incha allahu rabbi ma ma ma ma ñëwaat. et que ci législative bi incha allahu rabbi comme ni ñu ko tàmmee rek. Mm-hmm. ñun xamuñu xuloo xamuñu xeex. Mm-hmm. pacifiquement ci jàmm ak salaam. comme dirait Macky Sall ci njëkk. Mm-hmm. ñu defaat demi tour jël yoon bu baax bi. <laughs> en tout cas ñu ngi lay remercier. ci wuy bi nga wuy suñu sekk yow waxtaan bi euh, di fi ñëwaat nag incha allah yeneen yoon comme ça ñu gën a mën a càmbar li nga xamante ne en tout cas moom moo di bi législative bu ñu rek bu amee majorité war a former gouvernement euh. mu war a nekk la première cohabitation du Sénégal ma ñëwaat fii expliquer leen pourquoi cohabitation dafa baax yow sax investir nañu ci liste yi man bokkuma ci liste man man bokkuma ci liste yi man bokkuma ci liste yi moi je suis citoyen là mais payer ma demi tour ah. parce que nag Sénégal. mouvement bi nu mu a tudd. demi tour demi tour waaw demi tour ñëwaat ba ci rond point bi jël bu ah, baax bi. jéem a alors di bu baax a baax euh, Yoro Dia euh, di remercier également yéen ñi nga xamante ni depuis tout à l'heure yéen suivre tuuti moo nekkoon ci xarale gi di remercier également Papi Kane l'activiste gis naa nga ànd ak moom Papy Kane c'est mon frère donc Papy maa ngi lay remercier bu baax a baax ak ñi nga àndal yëpp euh, monsieur le ministre di leen jox euh, dig daje incha allah tout à l'heure dans votre émission entre elles d'ici là portez-vous bien jërë ngeen jëf